الكلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع سلام dama bëggoon tàmbale li may wax ci sant Serigne Mountakha Mbacké xalif général de Mouride may wax ni ginnaaw yàlla moom moo tax tey ñu nekk fii Touba ndax yaatal bi nu yaatal jàppale bi mu nu jàppale gannaaw bi nu fi gouvernement bi ak ministère de la santé yabale ngir ñu taxaw waa Touba ci wàllu mbas mi taxaw leen ci wàllu liggéey bi yamul fi dalal ñu jàppale ñu waaye taxaw nañu wutal nu bërëb boo xam ne sax mën nañu yaatal sunu activité may sant ñu si jàpp yëpp boole si sëñ ah, Thierno sëñ Koso Mbàkke bi ko fi taxawal tey boole si sëñ Cheikh Ibra Mbacke bi nga xam ni moom tamit jàppale nañu ci wàll wu nekk ngir lii mën a nekk sunu mbëbët bi am ma bëgg wax ni li nu indi Touba dafa yàgg yàgg nañ fi liggéey Touba dafa nekk dëkk boo xam ne bii dafa am solo ci senegal ci wàllu population bi ni mu toll ci wàllu Touba dëkku diine la ci wàllu Touba dafa nekk carrefour loolu yëpp tax institut Pasteur li mu fi nekk depuis téeméeri at bi nu décidé nañ fi def beneen laboratoire boo xam ni la am ndakaar yëpp am na fi ñu xalaat ni Touba war nañ ko fi def ndax li fi xew war nañ ko fi def ndax fi mu nekk war nañ ko fi def ndax population yi li ñu ko soxlaa ak yàgg bi ñu fi am ànd ak ministère de la santé ànd ak gouvernement bi di liggéey loolu li tax ma ngay wax mooy lu fi nekk téeméeri at yàgg na te dëgg la téeméeri at ñoo ngi fi di liggéey ngir Sénégal wér-gu-yaram yokku fi ci wàllu gëstu ci wàllu saytu ci wàllu jàngale moo tax li am solo mooy tey Institut Pasteur dox na ba nekk li ñu naan fondation sénégalaise maanaam Sénégal moo ko moom gouvernement bi ànd ak Institut Pasteur Paris ñu koy doxal di ko leeral instruction bu nu jot mooy taxaw leen Sénégal taxaw leen wér-gu-yaramu nit ñi moo tax bi ñuy sànc fii Touba ñu yombaloon moo tax ma ni dama bëggoon vraiment sant ministère de la santé itam hôpitaux yi fi nekk centre de santé directeur de la santé ñëpp ñi fi nekk ci Touba mosuñu ñëw fii te jàppale wuñu si liggéey bi ñun ñoom la ñuy jàppale waaye ñoom loolu ñuy gën a jàppale itam ngir li ñu liggéey mën a antu ndax population jot si yàgg nañ fi ñëw ngir màggal yàgg nañ fi ñëw ndax xew-xew diine yi daf ci am moo tax ma bëggoon rek leen sant ñoom tamit sant sunu kilifa diine yi fi nekk yëpp sant itam waa institut Pasteur euh, boole ko euh, dooree ko sunu kilifa muy El Hadj Assi bi nga xam ni mooy jiite tey fondation institut euh, si itam ñëpp ñi nga xam ni ñoo ngi sonn bu dégg bëccëg suba ngoon depuis ñu commencé tàmbali liggéey bi ngir lii mën a antu ma bëggoon leen wax nag ñoom ñëpp ñi fi nekk fii dañ ko liggéey pour ku soxla dakaar mën a yem fii et que dénk nañu leen liggéey bi fii te ñoo ngi si bàyyi suñu xel ak suñu bët duñ fi liggéey wasalaam ngeen euh, ma remercier jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi fi nekk yëpp noo ngi leen di jëtli ab nuyoo sëriñ bi leen di yéen ñëpp waaye di ko tàmbalee nag ci monsieur le gouverneur de la région de Diourbel sëriñ Ibrahima Fall moo leen nuyu bu baax ak euh, adjoint préfet Mbacké Bor ak euh, le sous-préfet de Ndam monsieur le maire euh, Touba ñu leen nuyu bu baax di nuyu itam njaboot si tubaab bi teew yëpp waaye di nuyu monsieur Mamadou Ndiaye mi nga xam ne moom teewal ministre de la santé ak ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu santé ci région bi yëpp moo xam Diourbel la wala Touba te yàlla dogal ni teew jotaay bi ñoo ngi nuyu monsieur le bu baax moom ak ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyandoo ci institut bi di leen nuyu bu baax leen jaajëfal di nuyu mboolem ñi nga xam ne njabootam lañu waaye di nuyu mboolem ñi nga xam ne teew nañ jotaay bi yëpp ñu bokk nañ ñëpp teew ci bis bii ñu bis bu am solo di daloo gi nga xam ne dañ ko bëggee daloo liggéey bii ñu bëgg def fii muy liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ñu ko ñi ma jiitu fii ci kàddu gi ni ñu ko waxee loolu rek li ñuy dëggal ndax loolu mooy lu nekk liggéey bi dafa am solo ndax wax ngeen ko waxati ko fii dafay buntu ci boo jubloo penku dafa mel ne boo jëmee soowu fii buntu la ci ñoom ba nga xam ne dana wàññi seenu yoon bu baax ci kaw bu ñu doon dem Dakar ngir bëgg a def lii dana mën a wàññi seeni yoon bu baax a baax te muy liggéey boo xam ne ni nga xam ne noonu la ko directeur waxee waaye maire Touba waxee ko noonu itam loolu jëluñu ci tool dara noonu la deme li mu laaj itam ci social bi am na solo bàyyi ko xel ndax dëkk bi day dëkku daara kon projet am na solo lool dañ koy confirmer rek sëriñ bi nag moo waxoon ñu ñëw ma ànd ak Cheikh Ibrahima ak ñi nga xam ne lim nañ léegi ci délégation bi ma ànd ak ndax am na mbégte lool ci institut bi ni mu def fii ci Touba ndax bis bi ma ko jëkkee wax jafe-jafe yi nga xam ne institut bi mi am ci installation bi ak inauguration bi daf maa wax ne ma loolu dama ci daal di taxaw fi saasa lépp lu ma ci war a def naa ko def ndax moom xam na dëgg-dëgg li nga xam ne moom la nit ñi jànkonteel ndax jàngoonte naa ak moom ba loolu moo taxaw mu am ci yéene am ci mbégte itam mu ne nañ ñëw ànd ak yéen inauguration bi liggéey bi te lépp lu ngeen ci soxla li ci kanam wax nga léegi li ci gannaaw te mooy Covid bi ak li nga xam ne lépp def na ko ci taxawaay bi ba jox leen terrain boo xam ne incha allahu jàpp ngeen koo defar te loolu rek li ci jublu ngir lépp ay jàpp dal am ci mbooloo mi ndax moom moo jàpp na ne moo war a liggéeyal mbooloo mi kon loolu moo tax mu jox leen ko loolu ci gannaaw la nekk waaye li ci kanam itam dama bëgg a ne rek mi ngi ci seen wet na mu nekk woon seen na mu nekk woon seen wet ci li ci gannaaw ba tax lépp loo xam ne am ngeen ko ci ci ay bëgg-bëgg wala ngeen ko am ay jafe-jafe bu ko yëgee itam fam jaarul rek lay jaar amul ci du ci toqi du ci tàyyi du ci def dara incha allah ñu amaat ci bi mu amee téeméeri at muy centenaire ngeen ñëw def ko fii ñun nag centenaire ku ko wax sunu xel day dem dëgg dëgg dëgg ci centenaire bi nga xam ne noonu ngay waajal te mooy centenaire Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee ci dëkk bi ak léegi muy lu am solo nga xam ne incha allah ren jii lañ koy waajal te ren jii incha allah lañ koy taxaw màggal ko. def ci ay taxawaay yoo xam ne bokkul dana wóote ak yi nga xam moo ci weesu muy màggal muy le fukki fan ak ñeent ci Tamxarit wii di ñëw incha allah kon loolu doon lu am solo loo xam ne boo dajee ak seen di dafay am lu muy symboliser sëñ bi moom bis bu set bu xëyee dëkk bi dafa war a dox ay tànk ci kanam ci lépp nag ci anam yëpp ni mu koy defee ci wàllu jàng xam-xam ak université bi di ko def ci wàllu xam-xam di ko def ci wàllu liggéey ci wàllu santé yi itam mel na ne moom itam kon dox na ba agsi fi mu agsi ndax gënoon na fee jafe demoon na amul hôpital amul post de santé amul dara ba mu yàgg ma am poste de santé ba mu yàgg ma am centre de santé ba mu yàgg ma am hôpital ba hôpital yi yokk tey alhamdulilah lii nga xam ne mooy mën a dimbale hôpital dëgg dëgg dëgg mooy lii mooy loo xam ne hôpital bi moom boo demee da nga koy jëmbal sa bopp waaye moom itam la mën a dimbali ko man caa leerlu ba mën a dox jéego yi war a dox mooy lu mel ne institut bi moo ko moo leen dimbala kon nag ba tey dëkk bi ak euh, domaine sëriñ bi alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi ci gën a sant yàlla bu baax gën a xam ne itam sëñ bi ni mu bëggee woon dëkk bi ci fànn yi mu ko bëggee yëpp xam nañ ne mi ngi dox jëm ci loolu bu baax a baax te xam naa ne it incha allah du yem fii ndax sëriñ bi moom digganteem ak boroomam la ñu la mu ci jëlee loolu amul benn yemuwaay xanaa luñ ci gis ak luñ ci gisagul te gëm nañ ne luñ ci gisagul lañ gën a gëm ci li ne teg nañ suñu bët ba noppi kon na nga ciy sant yàlla bu baax. monsieur le directeur yaa ngi wax ak sama diggante ak yow ak sa diggante ak Cheikh Ibrahima Mbacke mais ak sa diggante ak sëñ Mountakha sëñ Mountakha moom li wàllam mooy li ma la wax léegi. moom jàpp na ni njaboot gi yëpp ak na la moo leen ameel garantie ci lépp loo xam ne mën na leen caa taxaw mu taxaw leen ci kon moom loolu lu wax la ci moom te wax naa la ne nee na li ci kanam mi ngi ci moo gën a dëgër incha allah man nag sa wàllu bopp ñun dañuy doomi dëkk bi rek di balaa ñuy doon dawal sëñ bi fii tey dañuy doon citoyen dëkk bi ba noppi gannaaw bu ñu doon citoyen sénégalais kon lépp loo xam dafa jëm ci dëkk bi te war na amal nit ñi njëriñ buñ ko xàmmee war nañ caa dox suñuy jéego jéego yi rek lañ doon dox waaye seen wuñ ci woon sax ak cant ndax loolu nun li ñu ab yitteel dëgg-dëgg daal mooy li jëm ci dëkk bi ca tey lu baax ñu gàttandu ko jàppale ki ko ngàbb ba mën fee dugg ci dëkk bi ba mën fee taxaw ba li fi bëgg def mu def ko loolu maag Cheikh Ibrahima Mbacké mais ak maire bi ak ñëpp loolu mooy suñu rôle te loolu rek la def kon cant googu dëgg la noonu ci sant bu baax waaye incha allah lu ci kanam tam lii rek moo ci suñu tool te xam nañu itam fi mu toll sëñ bi te bu fu nga ko toll rek waroon ñu faa toll nu itam ngir bëgg-bëggam ñun ci bëgg-bëggam lañuy xëy ci bëgg-bëggam lañuy gont ci bëgg-bëggam lañuy nekk jamono yëpp incha allah kon wax jërul guddal ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan nag liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy tey di ko daloo barab bii yàlla na ci yàlla def ndam yàlla ci yàlla defal population bi ak jàppandal defal leen ci jàppandal gi ñu ciy séenu yombal gi ñu ciy yàlla ko ci yàlla def yàlla yokko yokk yokk ba li ci ngeen ci bëgg population bëgg ci yàlla def ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nuyu ñëpp rek ñi fi teew ci turu ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Ibrahima Sy di nuyu kilifa diine yi sëñ Thierno Mbacke ak sëñ Cheikh Ibrahima Mbacke. di ko yóbbante suñu nuyoo ak suñu ziar si sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér di nuyu nag autorité administrative yi teew yëpp ak chefs de service nationaux et régionaux ak mbooloo mi fi teew yëpp ak le maire de la commune de Touba euh, li ñu fi dajale tey rek mooy sànc gu bees boo xam ne dañ koy def fii di Touba muy institut Pasteur bu fi ubbi ab laboratoire di njëkk wax rek di leen jàllale ngantu ministre de la santé et sociale bi nga xam ne amoon na yéene teewal boppam bës bi ndax ñu ngi si doon liggéey moom ak institut Pasteur mais également ak kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo féete fii ci Touba waaye ngant moo ko dab bu biig ci guddi la ma woo ne ma tey su ma xëyee naa ko fii naa ko fi teewal kon ngeen xame na ko rek ngant moo ko téye mais yéenam tey mooy mu nekk ak yéen lii ñuy daloo nag foo naa ne muy institut bi njëriñam ci askan wi ñëpp xam nañ ko waaye balaa ñu si ñëw rek dinañ xam ci wàllu wër-gi-yaram li nga xam ne fii ci Touba gis nañ ay jéego yoo xam ne def nañ ko ci waaye lépp nag dëppoo ak gis-gis yi nga xam ne moom la xalif général des mourides fi amoon moo tax taalibe yi fexe jël gis-gis boobu def ko ay jëf waaye bi si jiitu mooy commune bi nga xam ne moom moo ŋànk dëkk bi muy commune Touba Mosquée gis nañ ci wàllu wërgu yaram ay jéego yoo xam ne def na ko ci muy tabax ay poste de santé waaye taalibe yi yi nga xam ne ñi ngi ci daayira yi ñoom également dugal nañ seen loxo bu baax ci wàllu paj ba tax na Euh, li tubaab di tuddee carte sanitaire maanaam mooy xool jumtukaay yi nga xam ne bërëb yi ñuy fajee lim bi toll ak limu population bi am na yokkute waaye loolu tamit dafa fekk état def na si nag ay jéego ndax seetaan ñu rek askan wi ak taalibe yi di tabax état dugal na ci ay loxoom ci wàllu poste de santé centre de santé ak wàllu hôpital ba lim bi fi ne nii ci tollu hôpital yi toll na foo ñett waaye bi nga xam ne moo mujj muy bu seexul Khadim bi fo naa muy hôpital bu mujj ayib ci wàllu d'abord faj mais également ñi nga xam ne ñoom lañu fa spécial yi nga xam ne am na fa yaakaar naa yu ci bari jarutul dem ba Ndakaaru da nga yem Touba suñu boroom dafa la ci tawféex waaye lii nga xam ne nag moom lañu ñu ubbi tey muy Institut Pasteur dina tax ba képp koo xam ne da waroon jógee fii dem Dakar def analyse jaratul ngay dem ku naa ne di nga ko fi mën a mën a am waaye lu jiitu Touba tamit région wu Diourbel ñëpp dinañ ci bénéficier wu ak yeneen région yi nga xam ne ñooñu ñooñu wër waaye dina tax ñu saytu dina am feebar yoo xam ne day day wàlle dina tax fii ci Touba ñu mën bi ko surveiller maanaam bi ko xool nan lay doxe ci biir askan bi muy surveillance épidémiologique Euh, ci yenn yenn jàngoor yi waaye dina taxit analyse yi loolu yéex maanaam génn ko di xaar résultat bi jëkk a Dakar loolu dèjà toog di xaar ndëgën ni ko bi dina dina wàññi waaye loolu yëpp nag soo ko gisee mooy pour gën a yomba askan bi kon yaakaar naa yéen bi nga xam ne moom la kilifa réew yi am mooy fexe ba Touba nekk dëkk boo xamante ci wàllu paj fonaa soo limee Ndakaaru gëm nañ ne moo cay topp ndax gis nañ ne fam féete mun na tax ay mbooloo jóge ci yeneen dëkk ñëw def commencé na ndax hôpital Cheikhul Khadim be ay nit dañuy jógee ñeneen région ñëw di ci faj bi ba loolu sax tax na fanaa ay jamono ñëwoon nañ fa ci boobu ñu am benn taalibe bu fa sànc bët boo xam ne pour mun a accompagner yi nga xam ne ñu ñëw ci yeneen dëkk mun na seen nekkin mun a baax muy un centre yi parce que gis nañ ne am na ñuy bëri ñi ñëw jóge si leen région dafa def kon loolu day mandargaal ne lii ñu def rek dina faj yenn jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku ko nañ ci Touba euh, leneen rek mooy di jaajëfal institut Pasteur bi nga xam ne jël initiative boobu mu dëppoog nag ak gis-gisu sëriñ bi ci wàllu sante ñëpp xam nañ taxawaayu sëñ Mountakha Bachir ci wàllu wërgeeram defati na ko ñëpp di ko gis waxuñu rek région Diourbel mais ci réew mi yëpp ndax bi ñu mbas mi sonalee taxawaayam bokk na ci kilifa diine njëkk taxaw jël alalam dimbale ko pour ñu mën a xeex mbas mi waaye loolu région état bi la ko defal waaye tamit fii ci njaareem ci comité régional bi gis nañ bu baax nu mu taxawoo ñi nga xam ne mbas mi laaloo nañ leen muy njaboot yi nga xam ne dañ leen war a jël en dëggal na également loxoom ci wàllu également autorité sanitaire yi nga xam ne ñoo war a saytu lool ak autorité administrative kon loolu tey suñu ñëwee fii foog naa ne gis-gisam moom lañ également ak dëppoo Institut Pasteur li moom lañ def kon yaakaar nañ koy ñaanal encore fois suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér te mu yàgg li nga xam ne moo ay naal yi mu am ci dëkk bi mu koy wax toujours ñu koy gis ci taxawaayam muy ñett yoo xam ne ñoo ko ñor muy dëkk bi taalibe yi ak xasida ay sàkk loo xam ne mu ngi koy def rek si yooyu la ko jëmale kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom bu baax mu dëgëral ko ba lépp loo xam ne naa la pour liggéey ko maam suñu borom may ko kattan bu ko mën a mottali li ci des rek mooy di remercier ñëpp ci turu ministre de la santé relation sociale système teewaay di ñaan lii nga xam ne moom lañ daloo suñ borom def ko ci ndam mu nekk également njëriñu sëpp am nañ ci yaakaar ndax ni ko sëñ maam Thierno Mbacke wax léegi ndax institut bi ko fi def am na téeméeri at waaye tamit ren ji ñuy war màggal téeméeri at yoo xam ne yu Seexul Xadim la mu dëppoog lool kon yaakaar ngir mun naa am suñu borom dinañu ko defal mu nekk institut boo xam ne dina gaaw a satisfaire besoin askan wi ba peut yeneen mun cee topp ci yeneen région te loolu foo naa ne gis-gis la te incha rab rabi ñu koy ñaan suñu borom di leen jërëm bu baax a baax a baax kàddu yooyu lañ bëggoon yëkkati rek si turu ministre de la santé et l'action sociale sëñ Ibrahima Sy asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu jërë ngeen jëf mustamaqaman duunahu kullu maqam yaa nuura kulli aabidin saama waqaam هديتي خذ كرما بلا انصراف الشكر لربي زائلا بذا النظام لك وقبله عبود بالعظام فيها خالدون هديتي إلى جماد ثانية من المحرم محرم mooy tey li ñu indi fii mooy dalal dal bu bees ci wàllu institut Pasteur bi nekk Touba ngir indi wàllu jàngal xale yi indi wàllu aussi taxawu nit ñi ci wàllu mbas mi ak yi fi mën a am ci wàllu feebar loolu mooy li institut Pasteur jublu dañ fi ñëw nag bu ñu fi bu ñu fi ñëwee euh, liggéey bu yàgg ministère de la santé ak ci ndigalu euh, xalif général moo nu fi indi mu yombalal nu ko ak waa këram yeeg ñi mu sant ñëpp yombalal nu mbir mi loolu di lu am solo parce que li doon engagement am ci wàllu santé pour ñu dëkk fii ci dëkk bi dafa nekk loolu nga xam ni moom ñun institut Pasteur si loolu la ñuy yëngu donc euh, ñu jàpp si lool yombalal na ko lool ànd ak autorité yi euh, ci ministère la santé ñi fi newoon ak ñi fi nekk ñëpp jàpp si pour que liggéey bi sotti moo tax tey ñu kontaan loolu ci lii ndax dana mën a permettre mu aar santé sénégalais yi ba pare ñi nga xam ni ah, feebar nañ lu ñu mu leen fi faj euh, li ni ñu doon wuti Dakar fekk si leen fii loolu yomb si ñoom yomb seen poste et puis yomb si itam mbirum urgence yu fi mën a am ñu mun taxaw gaaw ba mu bañ a law ba indil tooke dëkk waaw li nu mën wax mooy institut bi moom boo xoolee gis-gisam li ko tax a sànc mooy lépp luy wàllu euh, wérgu yaram Euh, ci bu wàll bu ñu ko mën a jëlee ñu taxaw si ba nit ñi jot si jot bi nag mu ngi nekk ci wàllu nit ku feebar soxla luñ ko sayto nga indi ko looloo indi béréb bi wala mu indi am na feebar yi law si dëkk bi wala ñu gis ni mbas am na fi ñu bëgg xam mbas moom lu ko indi lan moo ko jot loolu itam am na fi laboratoire wàllu tàggat aussi euh, étudiants yeeg ndongo yi ci wàllu xam-xam bu jëm si médecine wala xam-xam bu jógee si wàllu wér-gu-yaram nit ñi bu ñu jàngee université li ñuy wax théorie dañuy soxla itam lu nu pratique fii mën nañ fi jàng pratique analyse yi nga xam ni Dakar la ko naroon jàngee ni koy fac de médecine Dakar di jàngee mën nañ ko jàng si fii ndax at mu nekk lu mat juróom-ñett fukki étudiants ay ndongo dinañu ñëw Institut Pasteur dakaar pour jàng foofu comme fii am na Bambey am na université bi nekk fii loolu nit ñi na ko mën a jàng loolu itam si lu tabax ñu am xam-xamu médecine la bokk te looloo ëpp solo ndax ñooñu dina mën a seen xam-xam ñu jëfee ko biir Touba jëfee ko biir Sénégal mu nekk jëriñu ñëpp li mujj mooy wàllu saytu saytu dafa am solo parce que boo saytoo di nga xam ak gëstu nga xam lan moo xew si dëkk bi lan moo fi indi feebar yi ngir nga mën ci aar nii loolu moo tax sëriñ bi ci mbaaxam itam yaatal na nu fi wutal nu bërëb boo xam ne bii bu nu dooree fii mën nañ fa gën a euh, yokk activité ba loolu gën a yaatu biir Touba euh, pour mën a tax ba lépp lu wàllu wér-gu-yaram ci Touba Touba jariñ ñi fi dëkk jariñ itam ñi wër Touba